le 23 juin defoon nan ko dama bëgg ñu yëkkati teg ci lu gàtt maa ki dee naa def bakkan bu xool ndox bu sëqët nag borom pexe ndaw. pexe ak ci sous-préfecture yi. ils ont poussé pour éliminer les listes de Yewwi Askan Wi. mais je suis heureux de vous annoncer que 70 pour cent du liste yi nga xam ne annulé woon nañ ko récupéré nañ ko. trente pour cent qui des suñu compatriotes yooyu ñoom ñuy déglu daañu dem ak ñoom Cour suprême pour récupérer yooyu. Macky suul ngeen ko Dakar daan ko suul dans les six les six institutions. nan ko topp avec efficacité avec rigueur. moo tax ma bëgg lancer un message. mooy tous les candidats. fii léegi le 27. ñu nekk ci commune. nanu fexe ba désigner un plénipotentiaire ci ñi nga xam ni ñoo bokk arrondissement ñu nekk ci ville ak département yi nanu désigner un plénipotentiaire parce que le 3 décembre à midi bëgg naa suñu plénipotentiaire yëpp ñu déposé ko bu ko defee ñu bertat lañu bu leen may fulu njaam na leen wan digga ci nga xam ni moom la ñuy def kon di daanele ci Barthélémy Dias man ka wax léegi nee naa que Yewwi Askan Wi a décidé de mettre Dakar entre les mains de Dakar. mooy Barthélémy pour la ville de Dakar, il est debout. Toutes les idées pour le développement de Dakar ñu ngi koy wax guddi ak bëccëg te dina prison ba tàyyi Dakar sànq ne njabootam ñu koy gis ba tàyyi ndax Dakar kon lan moo gën a jëkk dul jox ko Dakar kon le 23 janvier On va effacer Macky Sall de Dakar et on va engager son départ pour 2024.